tey dañu daje woon fii ci gouvernance wu Dakar woote benn CRD ak euh, service déconcentré yi état yëpp ànd kook euh, comité d'organisation kuréel julli géej gi muy euh, benn ndaje boo xam ne si dañ ko def ngir mën a waxtaan si ku ci nekk ci liggéey bi nga xam ne état sant na la ko nga mën a ñëw teew joxe say engagement ngir ñu mën a préparer vingt-huitième édition julli géej muy ndaje mu am solo ndaje moo xam ne si euh, jullitu Dakar rawatina communauté mouride bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Dakar ñoom ñoo ko doon euh, organiser ba ñu toll ci ñaar fukkeek juróom-ñetteelu édition bi ren jii nii. si loolu nag dafa soxla ñi ngi xam ne ñoom ñooy ndawal état man leen a taxawu ngir li état sartoog ay citoyen ñu mën ko taxawu ba mën ko matale ca bés ba si loolu nag ñëw nañu déglu leen ñoom ñëpp ñu wax seen soxla lan lañ bëgg ak ban taxawaay la ñuy xaar si état bi ñu leen dégloo ba pare aussi service yi nga xam ne ñoo fi nekkal état jël nañ ay engagement ngir bés ba ñu mën a taxawu comité d'organisation bi ba ndaje mi jàll ci yoon ndaje mi nag day ndaje mu am solo ndaje moo xam ne si day dajale ay junni junni nit bokk ci ndaje yi nga xam ne yu ëpp solo yoo xam ne ci communauté mouride bi daf koy organiser ci Sénégal bokk ci bi ëpp doole fii ci biir Dakar loolu nag euh, day nekk événement boo xam ne ci dimension bu mag la am loolu soxla taxawaay bu bu bu am solo aussi ci loolu nag ñun rassuré nañ leen ci wàllu sécurité d'abord ci wàllu sécurité muy police muy gendarmerie ñoom aussi bala ñuy àgg ca bés ba euh, du 19 vingt deux ñoom ñëpp dañ leen mobiliser ñu assurer sécurité avant l'événement pendant l'événement mais aussi après l'événement Eh, bu loolu jàllee aussi comme li ngeen ko seetloo dañoo nekk ci jamonoy nawet eh, te mu am ay gox-goxaat yoo xam ne si amoon na ndox loolu aussi tax ñu jox ndigal brigade des sapeurs pompiers ànd seeg ñoom ànd seeg ONAS ànd seeg service d'hygiène ngir ñu mën a dem saytu bërëb ba ba nga xam ne danañ fa dindi lépp luy ndox. ak aussi bu fekkente ni encombrement bi nga xam ne xawoon nañ ko ragal loolu aussi jox nañ préfet ndigal moom aussi mu ànd ceeg service yi dem dindi ko ak UCG ba nga xam ne bala ñuy àgg ca bës ba bërëb ba dina set wecc ba mën a dalal gan ñi bu loolu jàllee aussi kër yi nga xam ne day dalal gan ñi aussi dinañ mobiliser service d'hygiène ànd ak waa élevage ngir ñu mën a saytu ñam yi nga xam ne ñoom la ñuy jox gan ñi euh, te comme bërëb bu ñuy toggee dañuy utiliser gaz utiliser ay jumtukaay yoo xam ne si euh, mën na indi mare dem si loolu tax aussi brigade des sapeurs pompiers ak ñi mu àndal yëpp dinañ taxawu euh, ñi nga xam ne ñooy togg euh, ñam yi ñuy jox ñi ñëw ci xew yi aussi ñu taxawu leen ba jël mesure sécuritaire yëpp ba nga xam ne benn jéyee du ci am walla boog bu amee aussi taxawaay bañ ca war a taxaw dinañ ko ca taxaw loolu moo ne woon solos ndaje si ndaje bi te biñ si génnee suñu xel dal na ak aussi dalal nañ xelu aussi comité d'organisation bi ndax ñoom aussi am nañ ci expérience yàlla aussi dimbali ñu mu am chef de service yoo xam ne si yàgg nañ ànd ñoom loolu di wane benn collaboration bu rafet boo xam ne ci yàgg na am ci comité d'organisation bi ak service yi nga xam ne ñoo fi nekkal état lépp loo xam ne si dal nañ ko ci def buñ ko yokkut duñ ko wàññi ndax dafa fekk ne dañuy génn si euh, jamono yoo xam ne sii dafa amoon ay mesures de restriction loolu xawoon na wàññi ndaje bi donc bu ñu ko tàmbaliwaatee nit ñi fépp fu ñu mën di nekk danañ ko bëgg a fekkee ndax dañ naan tàmbaliwaat dañuy euh, euh, organiser waat julli géej gi te ñoom gëj nañ fa dem loolu moo tax nag ñu ngi dalal seen xel si loolu. taxawaay biñ ca war a taxaw danañ ko taxaw incha allah. ngir jot suñu ay vidéo di di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international.